salaam salaam salaam gars yi tey sama vidéo tey du bokk ak sama vidéo yu ndax réew boo ci nekkee sa gémmañ ba joxul dëgg da wax fen te fen baaxul jullit di fen Ousmane Sonko ànduma ak moom chaque jour ma wax leen ko man ànduma moom man Macky Sall laa bëgg te gëm naa ni mi ngi liggéey te moom laa bëgg waaye Ousmane Sonko li ñu koy teg. frère nañu waxante dëgg jaaduwul ëpp na trop ëpp na trop barke alxuraan kay te ku mu doon yow mu nekk yow yenn yi ëpp na ñaaw na baaxul réew warul doxee ni injustice baaxul ci réew ma ànduma moom ndax gëw ko gëw ma ko Macky Sall laa gëm te li ma gis Macky Sall moom maa bokkal ma ko ñax a gis mais li ñu koy def nii ñaaw na trop yàlla xam na ko